salaamaaleykum seen auditeur de la télévision banlieue Fësël TV ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne nii ñooy safoo di seetaan télévision bi euh, di leen ñaanal jàmm kenn ku si nekk it di ñaanal ñi nga xam ne tëdd si lal hôpital yi ñaanal ñi nga xam ne it ñoom ñoo génn àdduna di ñaan yàlla xaral àjjana tey nag ñu ngi fii ci ginnaaw raay feet ci ki nga xamante ni moo di Guiss MC ñu gën ko xamee mm-hmm. mu jógee si benn événement bu mag événement boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi ko doon xaar ñu dem si ak jàmm génn si ak jàmm tey nag ñu ñëw fii seet si Guiss si ci ginnaaw raay biir koñam fas yéene waxtaan ak moom ci nan la préparer événement bi nan la dundee événement bi ak euh, ban ban lan la ci doon xaar loo xamante ni fekk na ci plus bi donc gis ñu ngi leen nuyu. ah maa ngi leen di fay euh, Mame Bamba di nuyu téléspectateur u banlieue Fësal TV yëpp di leen wax euh, this is your boy Guiss MC aka the Ruckus aka the Ducat Rucat aka Black Leopard you know ñu ngi leen di nuyu di wax di kontaan bu baax ci ñëw bi ngeen fi ñëw tey seet si ñu di wax que ni voilà excellent ak jàmm. Euh, gis ñu gis événement bi niñ ko waajalee. macha allah nit ñaa ngi fa woon mm-hmm. euh, événement bi jàll nag total. Mm-hmm. naka nga dundee événement bi. d'abord euh, damay sant yàlla bu baax. Euh, di julli si yonent bi di sant suñu ay waajur di wax ko nii voilà c'est comme ni nga ko waxee événement ku ko xam-xam ne lu metti la. Mm-hmm. préparatif yu metti la laaj. muy pendant avant et après yëpp day day laaj nga topp ko ba mu sës. événement bi dañ ko fi doon def chaque année. presque depuis suñu début. dañ ko daan def fii ci koñ bi après lañ ko déplacé euh, déplacé yóbbu ko xewal gi deux trois ans yi lañ ko commencé def Zac Sirat ça fait deux ans amul parce que Covid jaar na fi def deux ans presque gars yi tëgguñu kenn dégguñu man personnellement defuma benn son defuma euh, single defuma benn programme depuis boobu ñu ngi nekkoon studio di liggéey euh, doon bëggoon présenter juste bu affaire yi ñëwee album mais après bu ñu waxtaanee ak gars yi ci la ñu gars yi proposé nañu nañ def concert parce que ça fait deux ans defoo benn activité bul jékki-jékki rek présenté leen benn produit ci la ñu waxtaanee jàpp le novembre boobu c' était pour def ma ay show bi mu nekkoon retour boo xam te ni c' était pour réunir tout la publique c' était c' est à dire réunir toute suñu famille public bi euh, fans yi nga xam ne vraiment ñu yàgg suivre yàgg ñu topp euh, ñu ne pourquoi pas ci la ñu waxtaanee jàpp date novembre boobu noonu muy samedi passé def ko ci Eh, te gis nañ que ni vraiment gars yi ñoo ñu nam ñoo ñu gënoon nam mhm. voilà programme bi wane na boppam moom gars yi ñu gënoon namm. Eh, wees na su jàmm peut-être ci biir waxtaan bi dinañ ñëw ci yenn détails yeeg yooyu pour wax la que ni rek loolu mooy histoire programme bi mhm. ba samedi passé bi moo nekkoon dernier numéro bi. Mhm. Eh, dinañ wile ay leeral xam naa ci biir waxtaan bi incha allah. waaw ba tey kon ñu ngi wéyal euh, laaj yi euh, di laaj rek. parce que ñi koy laaj bëri na. Hmm. nee nañ foofu macha allah. Hmm. ku gis public bi keroog da ngay laaj sax est-ce que lan mooy lan. lan mooy secret bi quoi. Hmm. voilà gis gars yi bëgg nañu xam actuellement euh, lan moo nekk moo nekk si suuf en mooy secret bi ba foofu voilà. waaw secret bi moom nekkul dara lu dul liggéey. d'abord c'est comme li may wax toujours yàlla su fekkee daf la bëgg loo dara. Euh, li ci des mooy nga liggéey essayer ko cultiver ci yow. ñun depuis suñu enfance lii moo nekk suñu nattu. dañu am suñu métier dañuy liggéey. dañuy nekk ci yeneen business. mais musique mooy suñu passion depuis suñu enfance ba léegi euh, public bi aussi yàgg ñu ci gunge parce que c'est comme ni ma la ko waxee ci fii laa juddoo fii laa yaroo Euh, fii laa passé sama sama sama jeunesse bi yëpp euh, depuis suñu carrière aussi comme ni ñu ko defee noonu noonu lañ ko noonu lañ ko noonu ñu yàggee gunge parce que c'est comme li ma la wax ci koñ bi lañ ko daan def ñu ñuy suñu ay grand di ñu jàppale ñu koy def ñu déplacé ko xéwal bi ñu continuer di ñu jàppale ça fait deux ans c'est comme li wax kenn dégguma kenn gisuma mënoon nañ ne non ñun xamuñu artiste su lu mu newoon kon peut-être duñ ci jàpp mhm. mais ñëpp dañ ci sonn mhm. dañ ci def seen xaalis dañ ci def seen doole Euh, dañ ma gunge ci programme bi vraiment ba mu réussite moo tax c'est comme li nga wax secret bi nekkul dara lu dul liggéey ak respecter nit ñi surtout parce que aussi muy artiste muy loo mënti nekk foo nekk da nga fa war a jëmbat respect da fa war a jëmbat yar ak teggin loolu bokkul ak dara nit bi li nga xam ne mooy mooy li muy def c'est-à-dire yar ak teggin loolu éducation de base loo xamante ni chaque nit ak foo mënti nekk ci li nga mënti nekk da nga ko ci war a jiital peut-être loolu mooy li nga xam ne mooy suñu fort bu weesoo aar bi ñuy def ba fu ñu wootee suñu ay mbokk suñu ay dëkkandoo ñoom ñoo ñuy njëkk a gunge te soo waxee peut-être euh, respect boobu rek la ñuy partager ak yow ak yéene la. Mm-hmm. vraiment loolu bokk na ci réussite programme et keroog ginnaaw raay Pikine Kër Massar. ñëpp dañ fa dajaloo ñëpp dañu dajaloo foofu man mii euh, j'étais un peu surprise. Mm-hmm. vraiment parce que yaakaar moo ni mm-hmm. ak euh, temps bi ñu toog yëpp. retour bi dina dina dina réussir noonu. vraiment yàlla def ci xéwal ñëpp ñëw ba sax retour yi may am tay mooy doyaluñu ñoom. loolu lañ may doyaluñu <laughs> pour wax la que ni rek. kuy kuy donc calendrier bu nga xam ne mhm. Euh, ñu ngi ñu day leen nii c'est-à-dire concert bi gën nañu wan que ni amuñu droit pour taxawal ko. dañ ko war a continuer moo tax du yàgg dara déjà dinañ leen. parce que gars nee nañ lu neex du doy de. du doy ba pare man soo xoolee affaire yi keroog <laughs> man sama bopp ma. Mhm. bi bi je bi bi bi euh, ko yi daggee mooy li ma wax sànq c'est-à-dire bëri na nga xam ne peut-être ci biir waxtaan ñëw mais fi mu jeexee ma woon parce que dama pare woon ba 5 heures du matin. Mhm. am énergie pour xaar ma. Mhm. ma partage ak ñoom li nga xam ne moo nekkoon. Euh, ci fii keroog da nga yëgee ci kaw chaîne bi. Mhm. yëg bu doy waar. Mhm. yëg bu jaaxal gaa yu bari. Mhm. <laughs> la gaa yi bamba dama leen namoon. Euh, beneen bi mooy euh, affaire bi même buñ ci gagnéegul xaalis bu bëri am nañ ci expérience quand même c'est-à-dire affaire yu bëri joué nañ ci chaîne yu gën a mag. Tiken Jah Fakoly Gentleman Medine euh, Daz Effects Onyx. def nañ ci festival yu gën a mag. ci at ci Sénégal fii ak Petite Côte bi fii ci petite c'est-à-dire ci ci sous raison bi kon expérience boobu noonu lañu la ñu gagné moo tax suñu ay spectacle même bu fekkente ni amuñu niveau peut-être yi gars yi am wala amuñu moyens yi gars yi am mais dinañ def de sorte que ku fa ñëw dina xam ne ñii dañuy liggéey foowuñu te keroog ku ñëw foofu gis nga son gis nga lumière mhm. man aussi def naa lu ma mën mhm. juste pour béggal ñi nga xam ne ñoo fa ñëwoon te retour yi ma am mooy ñoom ñëpp dañu bég mhm. vraiment pour wax la que ni rek loolu loolu mooy secret bi liggéey la ak peut-être expérience bi ñu ci am moo ñu permettre vraiment ñu mënoon réussir programme bi et man man man man personnellement man li ma li ma gën a jaaxal souvent da gis artistes yi Euh, dañuy bëgg benn affaire sax mais souvent dañuy xalaat benn benn kii mi ci côté bi wala benn kii. Mhm. gis ñëw dëggal boppam xam nga ñëw def concert bu amul fenn. Mhm. après ñëpp apprécier. Mhm. donc. Euh, waaw waaw c'est comme li ma la wax tout à l'heure euh, am na suñu ay morom yu fi nekk. pour ma bañ a tudd yéen tudd mais lu tax ñoom nga toog sa ruq non parce que mooy li ma wax léegi su weesoo bëgg bi ñu ko bëgg. dañ ci def jéego yu bëri. am na concours bu tudd Flow tey mooy concours bi réunir. plus de 3000 groupes de rap. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ ciy inscrire. Mm-hmm. ba mille sax groupe de rap c'est-à-dire Sénégal bi yëpp ku ku nekk artiste génnewoo album su ñu waxee concours bi da ngay dem inscrire. man dama tegale trois fois successif finaalu ko nekk benn représentant wu ginnaaw raay trois ans. Euh, bi ma defee deux ans yi bu njëkk yi dama waroon bàyyi. mais comme vu que chaque année ginnaaw raay du am kenn ku ko représenté. loolu gënoon na ma poussé mooy continuer di bokk ci euh, concours boobu. trois ans pour wax la que ni euh, aw ma droit toog dama am obligation wu di def ay affaire parce que mouvement hip hop la ñuy wax suñu waxee mouvement nekkul rek pour musique bi mais mouvement bi mooy activité yi ngay def mhm. c'est vrai ñu bëri ñemewuñu ko mhm. parce que tey même yenn nit yi ngay gis fii ñu am niveau nga leen di dégg mhm. ñemewuñu woote parce que suñu wootee cinq personnes duñ leen wuyu si parce mën nga di feeñ télé di def vidéo gars yi di la vie YouTube loolu ay affaire yomb la mooy li olof di wax ne mun nga luye chaise mu luye basse mais luye ay nit lu jafe pour wax la que ni rek euh, lu naturel la entre man ak public bi ñëwoon foofu noonu mhm. te lu ma leer mooy suba suba suñ ko woote waatoon dinañ ci ñëw euh, te lu raw li ñu gisoon la ñuy gisaat pour wax la que ni rek c'est quelque chose de naturel xanaa gën a liggéey rek bañ a bàyyi loxo parce que le meilleur reste à venir allah. Mhm. donc kon gis mi ngi sànni xeer gars yi nag du ma tudd turu kenn gis nee na gars yi dañuy yaatu palaat te amuñu soos ah gis yaa ko wax de. <laughs> maa ko wax. <laughs> waaw kon yéen a ko déggandoo donc gis gars bëgg nañu xam aussi euh, donc muy nekk avant dernière question bi. kañ mhm. nga dugg ci rap. Mhm. ak lan moo la ci dugal en fait. voilà loolu moom. Euh, peut-être lu lu day laaj ay explication yu bëri parce que su weesoo sa comme li ma la wax. Mhm. passion bi nga xam ne yàlla moo ñu ko nattoo. Euh, man bi ñuy gën nekk booy am na cantine bu nekkoon fii sama xarit yi peut-être suñ fi nekkoon ñoom ñoo la koy waxaat man lañ daan yéegal ci dañ ma daan tingóob jàpp fexe ba ma yéeg ci kaw cantine bi su ma musaan yéeg man maay nekk ci kaw am na benn way américain bu ñu daan faral di way dana semi nemi nemi saaha pour wax la même boobu xamuñu woon sax li copain bi di wax mhm. loolu affaire la ñu yàgg topp ci suñu suñu xale mhm. ay wayantu dama ko yàgg bëgg ba peut-être ni ma yàlla di orienté ci hip hop teewul noonu laa mënee ci yeneen facette c'est-à-dire mën naa di way mën naa di tëgg jéeme nii affaire yu bëri dama ko teel a euh, apprendre. da nga dund daal bu baax. parce que yooyu noonu yëpp peut-être ak le avec le temps mooy tax yu ci bëri après peut-être dootoo amati temps pour mën ko pratiquer carrément. Mhm. mais damay tëgg damay way. Mhm. damay zikar damay rab c'est-à-dire dama yooyu daf dama ko bëgg dama ko bëgg en tant que artiste euh, yooyu aussi bokk na ci nga xam ne peut-être ay secret la yoo xamante nii rek moo ñu mooy mooy suñu foor moo tax euh, facette yu ci nekk dañ ciy mën a def euh, li ñu bëgg a def parce que keroog ku ñëw foofu gis nga couleur son yi ñu def mélange bi prestation bi da nga xam ne kii vraiment li muy def nii def ko daf ko maîtriser macha allah loolu mooy loolu mooy affaire bi te xam naa ni dina dina gars yi dinañ gisaat leneen ci projet bi may waaj indi incha allah donc kon bala ñoo waajal beneen projet bi bi gis def leen woolu woon sant ak siraat àdduna ñëw wuy ko mm-hmm. gaa yi sonn lool mm-hmm. donc gis gaa yi lay xaar nga may leen seen li mm-hmm. ñaan ku ku ku togg añ da ngay def raxas may leen ne gaa yi seen raxas soo paree nga doog a sant ñi nga xam ne ñoo la gunge si événement bi c'est vrai raxas bi même sama manager la laan demee ci euh, réseaux sociaux bi yëpp loolu la fa posté raxas bi raxas bi pour wax la que ni même nit yi dañ la ma kut koo kut fexeel ñu am beneen ah beneen plateau faneen voilà pour wax la que ni gars yi doyaluñu euh, man aussi doyalu ma mm-hmm. vraiment te bëri na nit yu si jàpp j'aimerais bien ma ma tudd fii seen tour parce que occasion bi mayu woon keroog ma collecter en beauté pour mën vraiment remercier ñi nga xam ne dañ ci sonn comme suma frère. Mhm. aîné muy Mbaye Seck. Mhm. Euh, Mbaye Kilim mbay borom Mbour Mbaye borom Malicounda. Mhm. Euh, daf ci jàpp bu baax. ma koy ma koy remercier de passage déjà bëggul lii sax. bëggul may di nekk di wax vraiment jàppale bi nga xam ne daf ma koy jàppale. mais mënul ñàkk. nit su la defalee dara. Euh, da nga koy wax ci kanamu nit yi. Mhm. loolu mooy loolu mooy li ci gën a néew pour nga rendre ko pour nga rendre ko hommage. Mhm. monsieur Tamo Diallo di suma grand aussi dëkk fii ci koñ bi. Mhm. du politicien du dara nit la rek bu yàlla wërsëgal. vraiment mu yaatu trop trop trop trop. di ñu jàppale muy muy artistes yi muy lutteurs yi. képp ko nga xam ne vraiment yittewoo nga ko. day taxaw ci say mbir. billet yu bëri la jënd may ko xale yi fii nii. Euh, Amadou Falba. DG agriculture urbaine aussi ma koy big up am enveloppe bi affaire yi diis na vraiment gars yi ñëpp dañ ci jàpp. Mhm. monsieur Big King depuis parcelle da ngay gis ay nit yu jënd ay 20 billets ñu ne ñii ne la envoyé naa la temps bu la neexee nga maye billet yi bu la neexee nga sànni ko. Oh. te duñ ñëw bëri ñoo xam ne dañuy jënd billet mais da lay leer na ñii duñ ñëw. am ñoo xam ni dañoo bàyyi seen njaboot yëpp ne leen dem leen seetaani ji mhm. pour wax la que ni rek affaire bi vraiment bëggoon naa ko mais nit yi ñoo ma ko gën a bëgg nit yi ñoo gën a tax mhm. amul benn coono bu ma ci mhm. yëg mooy remercier euh, mooy bi mooy ci occasion bi di leen big up gis tim aussi les meufs mooy xale jigéen yi nga gisoon noonu ñoom ñëpp dañu bàyyi seen temps réunion yi chaque jour ma leen doon sonal fii réunion dañu doon ñëw euh, gis family aussi muy sama team bi sama manager Faye Dio Keba borom Diofior Sari, Babiade, toute la famille, suma limee jum mhm. euh, ma famille aussi ma maman tout la famille sama mhm. sœur yi ñoom ñëpp vraiment dañ ci jàpp mhm. yéen aussi banlieue Fësël TV ngeen ñëw pendant euh, avant et après déjà da ngeen ma gunge ci programme bi ñëw jours yi teel a ñëw cadre affaire yi jàpp si ba mu jeex ma. kon gars yéen a ko déggandoo maa ngi dégg ci biir li muy wax mel ni dafa mel artiste bu mag lay waxal te kooku xam na boppam dama ko tudd tamit kon gars <laughs> ñu ngi leen jox dig daje si beneen émission. si beneen level. sur le banlieue Fessel TV